sama doom la te yaayam fii la daan liggéey ci biir kër gi boo gisee sax muy man di sa yaay nangu wu ñoo jël jànq buy fanaan wala bu yendu ci kër gi loolu moo tax. xamoo ndax Dakar am na ay détective privé. n'est-ce pas dafa jënd médecin bi fii dëkk bi boo amee xaalis lépp loo bëgg lijjanti da nga koy lijjanti mais ñun tamit nañ ko jënd. lii la. jox bi muy demee marché la. gis nga yéen ñaar ñii tàmm ngeen lu ma leen wax ngeen weddi ko jàppee ma dof joor dafay njaaloo waaw joor dafa am far laa wax gis nga doom ji mu ëmb nag juróo ko ah, nañ yëg ci kaw ma expliqué du waxu fii gis nga maak yow am na ñu ñu bëgg jaxase maajoor nañ dem ci kaw ma wax bul ma laal maajoor marché laa jóge da fen fenuma marché laa jóge safar nga demoon